Aïcha li ma leen ko waxee woon rek maa ngi nekk ci seen émission li ci ginnaaw mbër tey nag damaa génn fu bees tollu fu bees xam naa ne nag moon ngeen maa leen raw waaw fi seet si euh, benn euh, maa ngi lay nuyu. waaw Kaja maa lay fay. Abou ci loolu. waaw maa ngi sant bu baax a baax. te lii gis nga ragaluñ ci dara ndax ñun ay maanaam maanaam ñun ay doomu Sénégal waaw. waaw mais dëgg noonu. Euh, Abou. su ma la doon laaj lan nga dëkkee tey euh, biir Lansar lan nga dëkkee ñoom sa digganteeg ñoom. ab loo bëgg a xam lan la maanaam avant may wax si loolu damay nuyoo ba pare quoi. gannaaw bi ma santee yàlla xam julli si yenente bi sant sama ñaari waajur xam nga waaw maanaam di sant sama sëriñ tamit sëriñ Sidi Mbacke alxuraan moom mi naa xam ne xam maanaam def na si ñun lu bëree bëree loo xam ne mënu ko wax sax waaw maanaam kooku maanaam. kenn la si ñun daal waaw maanaam tamit li ma la mën a waxaat ci maanaam lamsaar tagal foofu waaw maa lay dégg léegi ci biir koñ bi kon xam nga ne topp naa la waaw waaw la rek ba tey maa dugg fii ci biir lamsaar hmm. ay ci ñu dem ñu xool loolu waaw nañ ko seddaan mu xool ragaluma si dara rubrique doxantu maa ngi ni daa mel ni dama seen ay doomu nda ndeyam ñu toog nii te fu ma jaar dinaa mën a wax ak ñoom ndax ne naa leen mën na xale coupable capable consommable sans daal waate nu ngeen gisee suñu jour yi ah mais dëgg tollu noonu tamit maa ngi nii Aïcha sëñ bi nuyu naa la. yaa booy fay naa la. noo def. sant yàlla bu baax ah, dama lay laaj tey ci benn mbër euh, ma fekk si ko fii ci Lansar ma ñëw na ci dëkk champion dëkk ndaanaan euh, fekk si fi Abou ma lay laaj Abou yow sa diggante ak lan la. oui man naa ne. bokkuñu ñu ak bàyyi ko mais daanaka ñoo bokk lépp. waaw jàmm la jàmm rek Baye Fall la borom baax la loolu lañ ko xamee ku am yitte la te xam nga te borom baax la champion la waaw. waaw su waxee loolu mooy man moom làmb boolewuñu ko waa waaw mais moom dafa doon koo xamante ni moom làmb da koo soxla bu bëree mbër la bu bëriwul mbër la da doon koo xamante ni maanaam nekkul nit ñee ko imposé ci làmb. sama doom. <coughs> xam nga yaay moom du mën a wax ci doomam lu bari ay sama doom daal xam naa ci moom yar gëm boppam bëgg li muy def bëgg nag ay kilifaam te nangu leen a jàppale à part lamb ji muy def ni euh, xaw ma nan laa ko mën a waxatee sax euh, buñ jugee ci lamb euh, abu nan lay dundee ci biir koñ bi ak yéen nan ngeen nekkee est ce que abu nit bu comme Baye Fall bi muy woote mu ngi ci moom simplicité bi est ce que mu ngi fi am na respect am na yar tànkam gàtt na te loolu lañ soxla si mbër te gis nañ ko si moom. mu ngi fi bien sûr lépp loolu lañ ko xamee quoi. ni muy dundee ci làmb ñoom lay dundee ak famille parce que chaque jour même même nit ki la ñuy gis parce que tey mën na nekk nit koo xam dem ba commencé am tour am changement bu mu wane envers famille wala ñi muy àndal parce que ñu ngi lay àndal démb lay àndal barke démb ñoom ñu lay àndal ba tey. waaw Abu li ma gën a neex si moom mooy am na fula am na jom am na fit xam na li bu baax. moom Baye Fall la quoi Baye Fall la ko ñëpp xamee sëñ Sidi Alxuraan la ko ñëpp xamee quoi. Abou daal xanaa sekk ak moom jàmm ak salaam xam ko mu nekk sama rakk xam naa ne moom baax na yaru na teey na te mandu na te barul ay dugg-dugg daal loolu laa ko jot a xam moom waaw. doxantu rek ba tey comme ni ma leen ko waxee woon du ma di leen ko wax waa Maya. xale bu ma a dox baa ngi nii tey maa ñëw fan fii ci biir Lansar. nuyu naa la fay naa la. ci loo ne. rek. Euh, tey dañ ñëwoon fii nag euh, ci Lansar ñoo seet fi benn champion bu mag. Euh, ñu di naan ñu naan ko abu Abou waaw Abou Niasse moom champion la moom. man moom wax dëgg yàlla sama rakk la. Eh, respecté nañu quoi vraiment ñun ak magam ñoo nan loolu dal xamna ko ci té te wu ñu respecté la wax dëgg yalla nit mom lim la lim la won nga mëna wax ñun respecté nañu jox nañu cër abu ñaasa vraiment waaw man abou man ak mom xamantewuñu bu ñu bu baaxa baaxa baax sama gaayen bi njëkk wax eh, tafa kundun ñu xamanté ak papa mais dafa am lu ndaw lu ma bëgg lancer sénégalais pour ñu xam ko boo nee abu da nga nan cité boo nee site ne abu te dañoo gis eh, dafa am lo xam dafa ma metti du abu kese mais daf ma métti ah, ba si kanamu yàlla combat bi passé combat Siteu bi passé da ngay gis yoo xam ne ay désordre yoo xam ne du yoon te dama bëgg waa Sénégal ñu xam ne ñun waa Diamaguène du ñu ay bandi du ñu ay wu soxlawuñu alalu jàmbur soxlawuñu yëfu jàmbur mais làmb moo bindoo noonu dama bëgg nit ñi ñuy xam ne d'accord ñu nay abu su ma la doon laaj euh, euh, euh, ñaata combat nga bëri waaw man nag mën naa ne xam nga ñeenti combat rek laa bëri bëriwuma combat rek mais maa ngi xamal mais nit ku nekk ak nu la yàlla nattoo ci làmb rek man man xaw ma sax man ba léegi lan la quoi mais tamit moo tax àddina amul solo loo fi gis dundalul naaj parce que tey man pour man booy dundalul naaj boo amee nit ñi ñaaxoo dara kon toujours loolu gars yi dañ ci war di gën di bàyyi xel maanaam di xam ni ngay laaj parce que laaj bi guddul te tamit xam nga mën naa ne mooy loolu man li may gisee nii lamsaar li mu mën a wax si ñoom bëri na maanaam tamit li mu mën a wax ci feneen ak feneen bëri na parce que man mën naa ne tey ñëw nga lamsaar mais boo ma fekkoon gën nga ne fa dëkk ne dëkkuma fa ndax fa mais tamit sama kër yaay fii la nekk mais fii tamit dama fi live bu ma jógee fa bu ma fa live fa bu ma xam nga parce que man dama nekk ndaw donte ne xam am ak ñëpp jàmm séq ak ñëpp jàmm xëy nit ku nekk yàlla moo lay natoo lenn li yàlla dafa am lu mu mën a natoo. Mhm. ab euh, quatre victoire. waaw ñëw maanaam ngi mujj maa ngi mujjee bëre le le avril la grand combat mais xam sant yàlla. combat maa ngi ci doon bëree benn bool bool jaar bool waaw mais nag ale boo gis am na retour waaw. Euh, ci quatre euh, euh, quatre yooyu. Mhm. ñaari victoire ban moo maanaam bu ma neexee ma ne dëgg la mën naa ne des na leneen ci kanam sax mais tamit maanaam ndam neex na ndam dafa neex waaw. ndax bari naa fi ak saamukaan yi daan ko mu neex toro ma gis gaay yi lu ñu daj bëgg ma bëri ak Cheikh Super jamono tamit xam nga mu jooj tamit bi mu koy jël wax ji bëri na torop eh, xam nga eh, ñun dañoo benn affaire bu nekk su ñun man boog man dama gëm ni lépp lu taxaw sama kanam maa la mën xëy na loolu sax maanaam ak yàqamti ak am loo xam ne sax loolu ngay wane moo lay yàqal say combat yu bëri sama combat bu mujj bi nii ma bëri nii mun naa ne dëgg la yàlla moo ko may ndam mais xam nga nit am na looy wax ñu ne da nga soxla mënuma sama moroom la te gënuma bëgg li muy def te gënuma ko respecté mais ñëw naa ñëw ñëw xale tamit ak lan ak ñi topp sa ginnaaw. comme li ma lay li may waaw affaire de waaw mën naa ne affaire loolu maanaam ci gëm-gëm la gëm-gëm bu ëpp la rek. waaw man moo nekk li may la wax rek ku ma dem ba jël avance dama jàpp ni dama war a jaar sa kaw jàll mais nag xëy na tekk tamit baax na quoi waaw mais man lépp sama lépp ci maanaam damay damay gëm ni tor man li ma moom nii damay dem jëli ko. su ma déggee sa wax day mel ni sa sa combat bu mujj bi moo la gën a métti ci sa combat. torop torop torop ba léegi daf maa jàpp mënu ma ko wax sax maanaam li tax mu jàpp moom mooy xam nga daf ma maanaam daf ma choqué quoi. ku ne man fii dëgg la mën naa ne maa fi gën a ndaw fii Lamsaar mais damay gis bu may bëre li ñuy daj waxi naan fii tandem su noonu jàmm a gën Sikaab Mbaaw Sam-Sam xam nga Sikaab Sam-Sam jag saaw Sam-Sam un deux ba trois caare géej asir mais loolu nag lu ma laay fa ak ñoom la parce que Serigne Touba ginnaaw raay Pikine Grand man bu may bëre fu nekk la nit di xaw ma nag lan la mais yàlla la quoi ñu ngi sant bu baax. ba tey damay ñëwaat ci beneen question rek xam ah, euh, euh, ah. euh, man de wax dëgg fa yàlla maa ngi doog a dégg kuy sax du dara nag du cadre lii wala laa mais xaw ma ko quoi. waaw te man làmb dama si dugg. dugguma ci dama koy waxat toujours dama koy wax samay gaan dama koy wax samay xarit dama koy wax samay supporter dama koy wax ñep lamb dugguma ci pour bëgg lu yomb wala di ñew ñu lay utal fooy jaar ak foy li lamb ku bëgg lu yomb dama nga top seen kër ah man de man man ama personne lamb bu may bëgg di bëre damay bëgg ñu ne ki tay mu ray la man bobu lay gëna mëna mën toujours sama jambar barke Serigne Touba. yow nga ne xamoo app. non te app mu ngi lay laaj. Mhm. kon lan la. waaw mais waaw mais tey man naa la dolli laal leen tey temps yi sax dama feebaroon maa ngi sant bu baax nag. Mhm. mais man duma ma jug si enterment parce que moom laa am mooy sama métier. te xam nga bu ñëpp bàyyi lépp topp sa ginnaaw yow dañ la sas man waxuma lamsaar lamsaar dañ ma sas fii dañ ma sas jàmm gën dañ ma sas waaxi naan lañ macha sam-sam parce que xamala mo gëna graw ngay bëre fu nekk nit du fa jóge kon yow xam nit ñi sas nañ la quoi ma ay sant nak amna defet mais damay sant bu baax parce que amna lu bëri lu ma jangal ci lamb wa parce que man toujours damay gëm ni lu taxaw sama kanam ma ngi ñu ma la mën mais bu ma té dëgg la dina gëm ni dama lay mën dama la mën mais dina ci def tek ak té ba borom bi jox ma li ma bëgg moom

ñu nekk ay booy di ko dund di ko live moom it xam nga mu nekk ndaw danaan tollu sax période boo xam ne comme temps yi muy bëre mbapat nii man mën naa ñëw sol lu set lu moom parce que dund nañ ko ñuy tere fekk muy contact sama gars yi non simeekul jàppale ko eh waaye xam nga ñu simeeku bëre bëre bëre ba sonn gàllem laay dem sangu ba set sol sama yére dem walla ñu ànd see maanaam kooku dañuy dund lu nekk. dañu dund lu nekk wóor na sëriñ Touba mën naa ne yéreem sama yére la maanaam maanaam mën naa ne lépp ñoo ko bokk te boobu léegi ñu ngi koy dund waa ba léegi nii ñu ngi koy dund. est-ce que loolu ba ngi mm. koy faral di waxee rek am na ñoo xamante ne bu ñu xasee ba doon star dañuy changé ay xarit. dañu wut ay xarit yu bees indi ay nit yu mel ni ñoom. Mm. fàtte man yàlla daa def si te man sax. yàlla dama dimbalee noonu bu ma neexee ma wax ko man mënul nekk si man star ndax bokk naa si ñi ko def star loolu fu ma taxaw moom fu mu taxaw sax da koy wax kon loolu rek sant na Siteu mënul nekk si man star te àddina du neex ba du duma ko wax lu dul dëgg parce que man laay soroone ëllëg wóor na Serigne Touba. à hmm. waaw man maa ngi business xam nga temps fii moom business moom fi may xaalis. waaw mooy loolu moo tax ñu ngi ci business yoo xam ne di takkale ñu ngi faj suñu soxla ñu ngi sant yàlla. ban mbër moo nekk sa xel boo xamante ne. waaw maanaam man bëri nekk sama xel. pour nga bëri moom. bëri na bëri na. bëgg naa nga ci gën ma ci kenn rek ba ñaar. xam nga tey làmb dafa garaaw làmb nekk na lu garaaw loo xam ni sax man bugguma sax di wax mbër bi wala mbër bi. maanaam dan naa fi laaj mbër sax mais gars yi ñoo ma mais tamit bëgguma lu yomb barke Serigne Touba. Euh, Abu am na soxna wala. Abu am na copine. non Abu non instant bi moom mooy loolu quoi li nekk sama kanam làmb la. sa mais ban copine yow doo bàyyi loolu nga may jéem a lii. bàyyi noonu. su ma la doon laaj euh, ba rek nan nga dundee ak sa waa kër làmb bi ngay def est neex na sa waa kër buñ ci dugg est ñoom bëgg nañ ko. waaw maanaam bu ma neexee mu ne bëgguñu ko sama yaay sama yaay ba day tool foo xam ne maanaam xam xam nga am nekk mbër nekk ndaw xam nga façon nit bu nekk di la supporter fu nekk nit di fa jóge xam nekk des fois nit ñi xam nga nit ñi duñ mën a wax xam te man mooy loolu. te waaye day jek jek sax alu wala yi ko yaay àddina mum solo àddina mum solo li man ma ko bëgg dama bëgg nga jappale ma ci pa waaw. waaw comme ni ma ko la waxe rek ba tey ci seen émission la li ci ginnaaw mbeur ma seet won tay nak euh abo ndiasse di ben mbeur champion dekk fi ni ci Lansar euh suma la doon wax nga tecc euh waaw champs mana menarik il faut ma sant ñi sonn samay komba xam nga di si jàpp di daj lu nekk di bàyyi seen lépp bàyyi seen xëy teewul nag dañ ciy dégg lu nekk mais gis nga man ak ñoom du làmb maanaam lu ñu dund la xam nga moo tax fi ma koy tàmbalee damay sant lamsaar xam nga aw ma seen fay muy mag di ndaw xale meer ndaw xam nga lamsaar tiwaawoon jak saaw toujours li may andi si làmb bu ma ñëwee nit ñi bëgg xam màgg il faut mu wax si ñoom mooy Gambie mbëri ñu ngi dem États-Unis de mais man Gambie laay dem barke Serigne Touba xam nga jàpp euh, koñu waalo waalo waalo yi ñoom dañ may supporter quoi xam nga tugg tablo xaarim jàmm gën foofu tamit samay gaañ yu ma dundal lu nekk ñoo fa nekk ñu dund ndaw comme ñi ma dundalee fii Lamsar. am na ñoom dama fi dund ak ñoom affaire ndaw bëri na ma doon lim fii du jeex tey mënuma lim ñiy bàyyi ñi di bëggee ñëpp di sant ñëpp waaw maanaam kontaan naa seen di tëjee Serigne Sidi Mbacke point amul leneen waaw di bëggee samay gaan bu baax.